képp koo xam ne tawat na ci yàlla na ko suñu borom saafara képp koo xamante ne ni am nga ci tolof tolof wërsëg yàlla na ko suñu borom bi saafara képp koo xam nga am nga ci wéradi yàlla na ko yàlla saafara ñu ngi nuyu ñëpp di bal ak ñëpp tey balu ak ñëpp ginnaaw bu loolu jàllee ah ñu ngi dikkaat tey ci musalas bi ñuy wax musalasu turabi ñu bëri dañuy woote di ko laaj tey ku leen ci wutal ay leeral yu xaw a kii rek waaye nag xam naa duñ mën a xuus ci biir biir secret yi ñuy waxtaan kenn fayuñu ci dara te ay sëriñ képp koy seetaan du ay client ñoo ñuy seetaan te wax dëgg yàlla wutuñu ci ay client nee naa leen man woowuma kenn dàquma kenn képp ku yàlla dogal nga ñëw fii daal wala ñu jokkoo ci li ma xam boo ma ci laajee la nga xam ne xam naa ko ci su dee lu ma mus fay la te ñàkk ci xaalis danaa la ci laaj dara su fekkee nag musuma cee laaj xaalis soo ma ko waaye dinaa la ko baaxee ngir jëmmi yàlla waye dem ci all bi jël sa temps jël sa alal joxe ko ñew ci télé secret bi yépp nga weddi ko jox ko ku tok ci salam rek di manipuler lolu lolu kenn ku nekk na ko set sa bop ndax bu doon yow di nga doxé nonu masalan tay mo ngi melni nga dem ci grossiste bi jënd saakub ceeb ñeenti junni di ci dakk ñaar témèr daal di ñew ni dama koy maye kañ ngay am bénéfice lolu mom ñi ñun wut ci taxu ñu ci jox pour mu xam lolu ndax amuñu sax temps bi wax deug yalla ñu ngi ci yeneen yo xamanteni ki bi ci daara la ak yeneen yo xamanteni ñu ngi ci yëngu kon loolu tax ñu ci jóg li ci ëpp solo moy ñu bari ñu xam waxuma ñu ñu umpale ñooñu waxuma leen xam nañ ñu ñun ci li depuis 2300 fi cent fii ñu koy defee ñu ngi ko fi té musuma ci dégg wala ma wérante ci nit wala ma wax ci nit émission bi may defit musuma ci dégg ku ma ni du ni ndax li ñuy wax lu ñu peeg la lu ñu xam la lu ñu jàng la te it lu yenu maanaa la nit ki ku jàng na xool rek soo fekkee gis nga loo xam ne maanaam naka sa dut noonu la boo ma nee nii bu dul noonu rek d'accord naa man sama mbir noonu la dëgg moom fu mu mën a jógee ci làmmiñu ku mën a doon d'accord naa waaye lu dul fu mën a jógee kenn mënul tax ba ma d'accord kon tey ñu bari dañ doon woote di laaj ci Mujallas Turabi am na ci loo xamante ni danañ leen ko ci leeralal képp koo xam ne bëgg nga wërsëg bu yaatoo yaatu bu gaaw te doo jóge fi nga nekk di soxlaal kenn dara ndax jàpp naa ne alxuraan ak xaatim yi secret yi ko xam dana jombante ngay woo ku la wut si ndax ku la wut si moom ku dansé ku xamul mbooloo li ci nekk moom la te ñun li ñu nekk amaana buñ demee ba ci kam di ngeen ko xam ngeen xam ne wut mbooloo taxu noo jóg te wax dëgg suñu borom ak ñu ci wërsëgale li nga xamante ni moom mooy nekk te li ñu ci yàlla wërsëgale nattu na ci ñun rek ndax loo xam ne dalay tey lekk si heure dalay tey naan ci heure dalay tey nelaw dalay tey jàng alxuraan ci lu gën a bari wala waxtu wa nga koy defee dana fekk alhamdulilahi rabbil alamina ñu ngi ciy sant yàlla wutuñu ci dara ndax ñu li ñuy yàlla wërsëgalal doy nañu sant nañ ci bu baax kon musallasu sa trois bi bi bu jëkkoon da daan gis ku dem ci wàlli nit yàlla yi ba léegi sax xañ na am na ba day am na di ko loo nga wax ko soxla boo xamante ne àddina ak ci biiram la mu somp compus cuuf jox la ko ni la boo demee def ko nii def ko naa te saa boo demee boo dikkee incha allahu taala boo defee lam la wax sa aajo yi dana faju booba nag ci mu musallasul trois biyu ci liñ ko daan liggéey maanaam trois biyu musallas ñett la moom ngeen xam waaye trois biyu ci suuf lañ koy liggéey ba tey tey incha allahu taala day dox ba suñu joon yàlla tey am na ci wala akabirul ulama yu ñu ko xam ñoo xamante ni ki bi du ñu ñaane lu ci suuf boo bëggee wërsëg bo beugé fal nit bo beugé fal nit bo beugé lu mu mën doon rek ci aduna soko beugé insha allah taala bo jaaré ci musala sutra bi dong am ndax danañ dem sax bané picci yi nga xamanteni ñoy naaw ci musala sutra bi la ñuy ci secret bobu ñuy wax ak mayen kamaahin so gisé picci di naaw def ni seen lafi ba caa nga gis ñuy def ni dañ naan ak mayen kamaahin ak mayen kamaahin non lañuy naawé moy 60 66 ñaari 66 66 euh, plus 66 égal 32 di japp xalbu kon tey ci musalas boobu lañ leen di dikkee waaye dañuy sax ni ñiy laaj ci ismu zaati mooy tur wi nga xam ni mooy tur sunu borom dëkk dëkk dëkk mooy Allah te Allah boobu nag mën nañu mooy ndeyi tur yépp bu doon la famille la ma mooy ndeyi tur yi di bàyyi tur yi kon ismu Allah ismu asmaa laal husna yi nga xam ne mooy feeñ ci quatre-vingt-dix-neuf noonu yépp da naan mën nañ ko génne ci ismu Allah koo ci seet rek boo ko dàqee ba ca fin ba. am na ñooy composé boo leen fekkee rek da nga xam ni ismu zaati mooy tur yëpp masalan tey boo jëlee allahu karim rahimi mu ngi lay jox cinq cent quatre-vingt-quinze mooy su fekkee jël nga waxaabu sariw mu jox la 595 huwa ahadu xayoomu mu jox la encore 66 par 3 mu jox la 198 loolu soo ko xoolee muy ñetti saati bee boo ko xoolee muy juróom-ñeenti saati muy 594 mooy allahu karim rahim mooy waxaabu sariw allahu xayoomu rasaaxu yooyu allahu xayu xayoomu wala yu rasaaxu 595 15 nga ne 94 rabbi habli maalan jasiran bi xaqi mikail 594 allahu xayum jaamee ko xaaru 660 boko xolé muy 10 allah légui nak bo xolé allah ci bopam Amna sekere secret yo xamni euh wax deug yalla Magi ma leen di wax rek ma ngi ñaan yalla sama làmmeñ ma bañ fak fakk japp ma bama fakas talu ci ak ci samay wax ak ci samay mbind ndax buguma andi ci liggéey bi njuumte boo xam ne képp ku ko liggéey dang ci am ku gaañu ndax kii sàkku lu leer amana lañ koy wax bu ko leerale buñ ko leerale bu ko defee man na ca gaañu ndax nit ñi leen yi ñu nit ñi bokkuñu xam-xam yi bokkuñu bopp yi tamit bokkuñu kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax su ko defee allahu danañuy dikk ci eh, eh, liñ leen bëgg a expliquer maanaam bu ñu xoolee ñu ni kii allahu la boo xoolee allahu karimu razaaq boo ko xoolee 594 boo xoolee 66 par 9 mu jox la 594 quatorze ayo nga ñëwaat ba say waxaabu sarihun mu jox cinq cent quatre-vingt-quatorze gis nga ko nga daal ñëw allahu xayu xayoomu walliyu razaaxu ba tey mu jox cinq cent quatre-vingt-quatorze nga ñëwaat ne rabbi hab rabbi hab liya maalan jashilan bi haqqi mikailu ba ko xoolee tam su ma juumul cinq cent quatre-vingt-quinze waaye bo ñëwee fii ba tey allahu hayyu qayyumu جامع qahaaru boo ko xoolee lay jox 610 610 66 boo xoolee 66 par 10 mu jox la maanaam 660 mo la doon wax ci kon kon allahu karimu rasaaxu jurum ñenti allah la 594 wahabu sareon 594 monom 9 allah ba tey allah way xey wali yoro saxu 594 muy allah ba tey rabbi habli malan jasilan bi haqqi mikail ba tey 594 allah waxe xew mu jaame wu qaharu ba tey mu jox la 660 660 66 boo multiplier par 10 mu jox la 660 moom la ñuy wax pour yàlla bi ñuy wax am tiixun kooku surafa yi dinaa leen ñi ëpp ci ñoom ñoo ko gën a xam wala ñi nga xamante ni xuus nañ ci géej gi baati nii ba yàlla baaxee leen ci loolu su ko defee kii yii nag mooy commencement bi ndax boo xoolee li ñuy wax dafata dafata mooy lii alif laam miim allahu laa ilaha illa huwa alhayyu qayyumu qayyumu quatre huit quatre moom la wax dafata soo multiplier par neuf mu jox la six cinq trois quatre muy wa niltu maanaam quatre mille trois cent cinquante six 484 diglul dafata alif lam mim allah la ilaha illa huwa al hayyu qayyum 484 muy 9 sati nga multiplier encore mu jox la 66 multiplier par 66 mu jox la 4356 484 multiplier par do mu jox la 4356 batay di allah kon sati mu ngi ni te sati batay allah allahu boo moy qul huwa allahu ahad moy bisimilah rahman rahim pourquoi bisimilah rahman rahim ala ba bisimilahi rahman rahim ayo bokki ki bu ngeen ko xolé 19 araf la qul huwa allahu ahad ba mu jeex 47 araf la 47 plus 19 mu jox la 47 plus 19 mu jox la 66 moo tax dañ ne allahu boo koy liggéey yaa ngi liggéey yaa ngi naan bismillahi rahmaani rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad déglul bismillahi rahmaani rahim araf yi 19 la qul huwallahu ahad allahu samad bam jeex araf yi 47 47 plus 19 égale 66 mu jox la ba tey allah dégg nga ko kon ñibbisi na mooy bismi boo nee allahu yaa ngi naan bismillahi rahmaani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad kii ci way baatini wax nañ ne bépp néew boo xam ne ne nañuy jàng bismillahi ah, allahu ya allah ya nga xamante ni faat na incha allahu taala sun borom bi na ko ay bàkkaaram du ko togg jenn jëf joo xamante ni maanaam jëf ju safaanu la kon yi nañ ci bàyyi xel bu baax mais allahu bi dañu bëgg a xamal ni mooy ndey tur yëpp lépp li di wut ci àdduna ak alaxira tam mooy ci allahu mooy bii allahu 66 la léegi nag pourquoi boo jëlee 66 maanaam 66 yi boo boolee araf yi benn ñaar ñett ñeent 66 plus 4 kay kun la mu boo jëlee araf yi 4 la nga jël adat bi 66 4 plus 66 égal mu jox la kun moo tax ci 3 bi bi dinañ ci gën a leeral ci kanam xaaral tuuti ma expliqué abal ma ay ponse bi ma xool fa waaw ah. baal leen ma tuuti rek ma ñëw kon lii leer na yaakaar naa comprendre leen li ma wax allahu xëy xëyam allahu karim rasa 595 wahaabu sariw 595 allahu hayyu qayyumu waliyu rasakh 594 rabbi habli malan jasilan bi haqqi mikail 594 allahu hayyu qayyumu jaamiu qaharu 660 kooku moo la wax jox 10 saati mais yeneen yi ci des yëpp boo xoolee 66 multiplié par 9 rek daf lay jox 594 alif lam mim allahu la ilaha illa huwal qayyum 484 484 plus 9 mu jox la su ma jumul 4356 bismillahir rahmanir rahim araf yi 19 la xul huwallahu ahad arafi mu ngi japp 47 47 plus 19 mu jox la 66 di allah nak euh su ko defé ñu ñëw ci musallas bi nim ci doxé té amna nak bu len faté ni amna na ismullahi laxsam bu mag bo xamni ni tur yàlla la amul sin ñeenti araf la am suma jumlé jumlee ñeenti araf la am wala ben nga bari juroomi alaf tal samu saati bi mu ngi tolloo ko maanaam boo xoolee boo xoolee tur yàlla bi ci boppam daf lay jox quarante neuf araf quarante neuf araf ku ko xam xamal ni am nga ismullahi laxsam boo xam ni boo ci woowee sunu borom dana la wuyu loo ko ci laaj incha allahu taala te sellal ko dana la ko jox ci kàttanu yàlla ak màggam voilà lolu mom, talsam ni dina nee duñ ko faral di bind ci tablo ndax talsam dafa doy war doy war go xamni laaj na nga tok ñu expliquer ko bax wala nga am karange bu bax ndax amna na xamni boko fesselé ko nit ki man nako liggé gañu ci bu ko defee ñu naan serigne sangam moko ko nangam mu gañu te yoy yep lolu dañ koy bañ inshallah taala su ko defee da ngay wax ni ismu sati moy li manam tay da nga naan ay xaa u ay xaa u waaw gars yi ay xaaw ñaata la ci cinq la ay xaaw ay xaaw maanaam vingt deux nga ñëw ni bakk xaaw bakk xaaw trente trois jal xaaw quarante quatre maanaam jal xaaw mooy quarante quatre kon dam xaaw dam xaa u mu jox la cinquante cinq dam xaa u mu jox la cinquante cinq xan xaa u xan xaa u kon six cent six la lay jox nga ñëw ci wash xaa u wash xaa u soixante dix sept la lay jox nga ñëw ci saxaa u saxaa mu joxla 77 mu jox la 88 xafaa u xafaa u mu jox la 99 taddo xaa u taddo xaa u mu jox la 110 musalas baa ngi ni kii mooy musalasu 3 bi nii la ñu koy duggee pour xamal la benn bu ci nekk ay xaawu 22 baka xaawu 33 jal xaawu 44 dam xaawu 55 kan han xaawu 66 was xaawu 77 sa xaawu 88 haf xaawu 99 dad xaawu 110 suma ma bu ngeen ko xoolee mbok yi daf lay jox li manam ni 595 594 ngeen baal 594 la lay jox waye ismu laay laxsam bi mom munuma ko bind ci tableau parce que tout yalla bi ci juróomi ñeenti xaraf juróomi araf ci la départ ñeenti araf ci la départ araf yi mooy keef gis ngeen ha kabir ta waaw ha benn ñaar ñett juróom ci fii la dépendre fii ci la dépendre juróom ñaari tur la tur bu ci nekk boo ko xoolee 66 lay jox am na nuñ koy liggéeyee noo xamante ni ki bi maanaam su ko nit ki takkee bu dee dafa bëgg àddina rek daf ko itteel ak alaxira tam ak lu mu woo rek lu mu wut nguur yeeg ñëpp wut si ko incha allahu taala waaye yàlla na fekk nga xam li nga leen di doyee loolu tam am na ci solo di woon nit ñi te xamoo li nga leen di doyee wala waxoo leen li ngeen mbir mu doy waar la ndax it nag euh, tappale suñu mel ne maam maam Cheikh Ibrahima Fall da cee waxoon lu solo dafa waxoon ne ah, saay doom tappale day ñetti rek la ñu ne ko faal ñetti at lan la mooy at ma nga ko wooyee ak at mañ la wuy wuysee ak at mañ la bàyyee loolu mooy tappale tappale moom bu ko nit ki defee ren bu déwee ne ñu wuy suk te déwén jéeg du gis kenn ndax kenn du ko wuysi ndax xam ne day tappale kon mbokk yi tur bi 49 araf la ku ko am am nga ismu saati xaqan am na tam bu ñuy wax safinatul amaan bu Serigne Touba bokkut ak safinatul amaan bi ñu baaxoo xam ñu xëy téere la bu ñuy jàng am na tam beneen téere bu ñuy wax ah, Serigne Touba sax way na saati ajaabani rabbu sama kooku way ko mu di ak xasida mais am na geneen xasida goo xamante ne def na ca benn talsam boo xamante ni mu ngi pecci 66 euh, boo ko multiplier par 81 mu ngi lay jox mu ngi la ko jox benn waay bu dëkk Nigéria sax nekk Nigéria sax bi Sénégal moom mooy woo doon ma laaj ndax xam naa ko ma ne ko am na lu ma ci yàlla wërsëgale incha allahu taala bon mbokk ñu ngi yemale fii émission bi euh, ngeen baal ñu àq ci lépp luñ ci wax te naka sa dut noonu ñu ngi leen ci jeglo ngir jëmm yàlla tax xam ne doomu aadama moo matul waaye jubluwuñ ci sax loo xamante ni ki bii maanaam ay tontonte la wala dara ndax gisuñu ci ku ñuy tontal tey wax dëgg yàlla ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di sàkku ci ñëpp ñu ñaanal ñu jàmm lépp luñ ci juumit matadik doomu aadama moo toll noonu nañ ko jégal ñu ngi ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm incha allahu taala ñu ngi gërëm Modou ak Ousmane seen taxawaay yàlla na yàlla gën a dëgëral yàlla gën a aar leen bari ñi gi yàlla na yàlla saxal jàmm da saxal fi dëkkandoo yi ñëpp yàlla defal leen jàmm sutura ak wér ak wér ci barkeente bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi sant ñëpp di a ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala kon nag bu beneen yoone incha allah am nañu ñuy bu ñu yàkkamti am nañu ñuy laaj beneen kar dafa ndax am na beneen kar dafa am na allah émission bii di dikk danañ leen ci dikkal ci kàttanu yàlla wasalaamulahi wa barakatuhu wasalaamulahi wa barakatuhu wasalaamulahi wa barakatuhu yàlla na yàlla dooli jàmm ak xiwal wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu bisimilah barakalaa fiik